Cheikhul Khadim suñu yaakaar tey ak ëllëg di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké suñu borom gën ko fee yàggal te mu wér ba mboolem ay naalam ki yéen ki Serigne Touba lépp mu defee ko ko soobee waaye ñu koy ñaanal bu baax itam xalifaab Serigne Abdou Salam Gom di Serigne Sidi Gom mi xalifaab Serigne Abdou Salam Gom ak mboolem ngi bëccëg Serigne Abdou Salam Gom gépp di ñaanal bu baax mbooleem ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun bis bi bu baax itam waaye di ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp fu mën a nekk. di ki jiital itam mbooleem njabootu sëriñ Aliou Diouf Lambaye gi di leen ñaanal bu baax di ñaanal xalifa bi ak sëriñ Dame Belal Diouf nga xam ne moom lañ toogal moom sëriñ Thierno Diouf Lambaye euh, di ñaanal bu baax sëriñ Sayer mi nga xam ne euh, mooy suñu kilifa di yor kàddug sëriñ bi ak Seydina Omar ak sëriñ maam Thierno mbooleem njaboot gi. gannaaw loolu itam ñuy sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo tew ci bis bi waaye di sant sëriñ bi nga xam ne moom la ñu teewal ci bis bi muy sëriñ Dame Belal Diouf. moom Serigne nu Diouf Lambaye nga xam ne dafa ñëw ci pàkkab boppam ñëw ci bërëb boppam ñëw ci bisab boppam ndax euh, bis bi ki koy defal di Serigne Abdou Salam ak Seydina Omar Serigne Serigne Seydina Omar ku ne xam ne digganteem ak Serigne Aliou Diouf Lambaye ba nga xam ne li fi dox lépp ba Serigne soxna Mariama Diouf Serigne Aliou Diouf Lambaye jox ko ko ba am suñu waajur di Serigne Abdou ba tey ñuy taxawee bisam tey jii tey jii nii kon mm, lu bokk ci njabootu sëriñ Aliou Diouf Lambaye suñu waatee ci pàkk bi eh, eh, eh, pàkkab boppam la ñëw bërëba boppam la ñëw bis bi itam sabab bi mooy màggalul ci màggal ci sëriñ Touba waaye màggal ci ngërëmal sëriñ Touba ci ab taalibeem bu mu gërëm muy sëriñ Aliou sëriñ Seydina Omar waaye ci màggal ci itam war may nit ku baax te wañ yuasim xurumatullahi fa huwa xayrullah kon nag sëriñ bi ñu nga xamal ne bis bi daal mu ngi nii Euh, euh, euh, say say say say jëwriñ a fi nekk waaye say taalibe fi nekk waaye say rakki bopp képp a fi nekk kon nag lépp lu ñu fiy def yéen lañ koy defal Seydina Omar itam la mu waxoon Seydina Aliou Diouf Lambaye rek. mooy soxna Mariama Diouf mi benn doom bu góor képp lay am ci kaw suuf te Abdou Salaam ibnu Jaxfar lay tudd daal koy wax ne bokk na ci juróom-ñaari Abdou Salaam yi Serigne Touba doon ñaan ci géej gi euh, te Serigne Aliou Diouf Lambaye yëkkati ko jox ko ko mu am ci Serigne Abdou Salaam Serigne Abdou Salaam moom képp euh, kon li muy tegtale mooy Serigne tubaa waxoon ne euh, waltu bashir bi yatama dawaman inchihim biha bahum kullahiini kon mag ñooñu nga xam ne Euh, te Serigne Touba waxoon ne saxaaba yi ñooy seen baay ki diine dëppoo googu mag ñi dëppoo woon ci xam-xam ak ci diine euh, Serigne Touba wax ne wa kasafa di janatal xafaaxi bil xilmi wal xamali wal wifaaxi kon loolu am feeñ na ci biir mag ñi ndax feeñ gi mu feeñ ci biir moo tax sëriñ Aliou Diouf Lambaye yëkkati euh, ab jigéenam di soxna Mariama Diouf yëkkati jox Seydina Omar ba mu am ci tey ñu ñuy taxawee euh, euh, bisu sëriñ Touba waaye am ci tey ñuy màggal mbirum sëriñ Touba kon nag mm, dañuy dañ dañ dañ def leen lu may di la wax ne sa bisa bopp a ngi ni daal say taalibe bopp fi nekk say rakk fi nekk say jëwriñ fi nekk kon lépp lu ñu fi def rek yéen lañ koy defal kon dañuy rek sëriñ bi kàddu kàddu gi mu daal di eh, jàllale ay kàddoom ci bis bi kon sëriñ bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi ne diglu te dinu seetaan ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp eh, di xam ne ne am na mbég mu rëy tey jii ci teew gii nu teew fii ci nga ci barab bi bi nga xamante ne bii suñu barabu bopp la ndax ni ko sëriñ bi waxee ne la waaye ñu ngi see ñu ngi ñu ngi jiital nuyoo bi ci Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan mu yàgg ci wér di nuyu itam jëwriñu kër gi sëriñ Seer sëñ Omar maam Thierno sëñ Fadilu euh, sëriñ Saalihu waaw sëriñ Saalihu sëñ Fadilu ñu ngi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne turam ak santam ci nuyo boo xamante ni bii tey dafa bàyyi koo ci njabootu sëñ Aliou Diouf Lambaye yëpp euh, muy sëriñ Thierno Faali may xalifa ba. di xalifab sëñ Aliou juuf ak sëriñ Abdoulaye Diouf mi xalifab sëñ Thierno Diouf Lambaye ak sëriñ Ahmadou Diouf mi xalifab sëñ Modou Fatou Diouf ak sëñ Dame Diabba Diouf mi nga xamante ne bii mooy xalifab sëñ Basir Diouf ñoom ñëpp ndaw lañ ci ñoom yoo xamante ni bii dañoo jiitu ñeen war a àndal ndax it tey jamono waaye am na ñooñ danañ ñëw ci wàllug bëccëg mbaa ci wàllu ngoon gi ndax bis bi kat moom sun bi sax boo xamante ni bii ku dikk war nga nu fee fekk. ku dem war nga war ngoon fee bàyyi euh, ñu ngi leen di sant nag bu baax ci taxawaay wi ak bëgg lu baax gi ak jëfe lu baax gi nga xamante ne bii sunu borom da koo def ci yéen ndax bi ngeen dee ay bokk teewul ay xarit ngeen waaye li nu gën a sant nag ginnaaw bu doon benn si noo leen ko màggee te danoo bokk way jur dafa mel ni tey jii jub ki ngeen jub nun ñi ngeen dimbale ndax li ngeen dimbalee bu ngeen melal neneen itam du nu neex. ku ci la yéen it danay jàpp ne noo la war a lijjanti waaye bu yàlla dogalee ngeen tënku ci siraatal ma doon ay murit yoo xamante ne bii da ngeen a kennal Sëriñ Tuubaa te boolewuñ ko dara ci mu nekk seen jëwriñ na ko kilifa ya defe woon ne ci lu baax dafa mel ni nun nun ñi ngeen noppal ah waaye nag ñu ngi ñaan Sëriñ Tuubaa te di ko ñaan ci barkeb sëñ Abdou ak sëñ barkeb sëñ Omar ak barkeb sëñ Abdou Salaam fépp fu ngeen bëgg àgg ak fu ngeen bëgg àggale bis bi yàlla na suñu borom àggale ko fa rafet na njort ci ne nag suñ borom dana ci mottali seen yéene ndax dafa am lool ginnaaw am ngeen fiitu tàmbali ak xelum tàmbali ak xam ne war na ngeen tàmbali ko suñ borom ak sëriñ tubaa dana ko àggaleel ah nañ góor góorgóorlu xam ne day sëriñ tubaa du fi jóg mag ña nga xamante ne bii ñoo ko toppoon it lañ fi nekkee woon du fi jóg ndax fi mu ne boo bëggee xam sëriñ tubaa laaj ko ma laajal magum sëriñ tubaa rek boo bëggee amuk taalibe it laajal magum sëriñ tubaa ndax ab magum Serigne Touba moom moo la mën a wax ci Serigne Touba moo la mën a jàngal ak bi ñun ñii nga xam noon nag ñëpp a war a sant waaye nun ñii nga xam ne noo bokk këlub bawal noo war a gën a sant ci ñëpp ñi nga xamante ni bii tey dañoo topp Serigne Touba ndax kat kenn ku ci ne nu daa daa mel ni noo mujj àgg ci Serigne bi waaye noo ci ëpp cër ndax kenn ku ne na nga àndeek Serigne bi. ñii dañ ko ñii dañoo fexe ba jëmbat fa seenu njaboot ñii fexe ba def fa lii ñii fexe ba kenn ku ne am fab cër waaye noonu nag yàlla dañoo sutural nu xam ne seriñ Touba liggéeyil ko rek moo cay tax a jariñu ba mboolem dun magee bawal yi nga xamante ne bii tey ñoo toppoon Serigne Touba luñ am Serigne Touba liggéey leen ko may te boolewuñ ko ak dara te liggéey boobu loolu itam ba tey mooy wéy ci yoon wi lu ci lu la ci waay ëpp le dalaa gën a liggéey rek te yàlla tax kon nag loolu yi nga xam ne moom la mag ñi doon def ba gisatuñ leen ngeen yeesal ko feddali ko fasiyene fañ tegen sen tank ngeen tek ko fa talibi gi rafetna itte ji matenako berno gi matenako beug lu bax gi matenako kon yalla na touba taxawul len bopam yalla seigne na taxawul len bopam ngeen ag te baña am mendok waye na ngeen xamne man dik gi ma dik day kenn la ci njabot gi ñewalugun fi sëriñ bi waye ñi ci desit danañ and ñew ci kanam tuti su ànd ak dogaloob yalla kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu teewe ko ay déwéni déwén déwén wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jërëjëf asalaamaaleykum jërëjëf Diouf waaw wax dëgg kàddu yi rafet na ñoo ngi sant bu wér a wér la sant bu wér a wér bokki taalibe yi itam yi nga xam ne eh, ñoo ngi dégg suñu kàddu ñoo ngi leen di seeral ne leen am nañ cantuk sëriñ Dame Belel Diouf bu sëriñ Thierno Diouf Lambaye bu sëriñ Aliou Diouf Lambaye eh, dañ koy sant bu wer ci taxawaay bi fii mbooleem uh, ñu Sëriñ Tuubaa joxoon ay cër ci yoonu murit ñu ci bari jàpp naa ne ñu bari balaa jant bee sot nañ bari ñëw fii waaye ñoom gi daf ñoo ne daf ñoo neex Seydina Omar dafa uh, jóge fi sëñ fii dem ci Sëriñ Tuubaa fekki ko Mbàkke Kajoor jébbal ko boppam uh, mu mu mu joxoñ ko Cheikh Ibra Faty ne ko ba yow ko dénk fii ak fan jëm muy kon def si yaaram ci moom dafa fekkante fa ak mag ñi moy seigne Aliou Diouf lambay ak yoy fa lañ ko seen couleur ya sa euh, commencé ki ñu defal bes bi ta moy bes bi nga xam seigne Abdou Sam taxagu nako lopp ju juroom ñaar fukki at muy bi ñu tawat magal tay fi fii koy taxawu diko diko diko def ba nopi ko def ñun ñi da nañ ko taxawu ci dekk ba fe ba nañ ko doxal indi ko fi ci dekk bi diko diko di ko di ci talibé itam lañ ko def ci pass pass lañ ko def ndax it loolu lañ xam kera ba mu joxee seexul xadim bopp la jël mboolem njaboot gu mos a am gu mu am muy góor seexul xadim la ko tuddee wala borom Daaru Muti njaboot gu mu am muy jigéen euh, seexul xadim euh, soxna jaar la ko tuddee yaakaar naa xam naa ci soxna jaar yi mu tudd lu mat juróom-ñaari soxna jaar tudde na ko ko waaw euh, soxna Fatou Issa Diop am na ci tur 1908 la sa sa soxna mu am doom mu wax ko sa borom darmuti ci ci ci yéen lañ ko tuddee tuddee ko soxna Fatou Issa Diop waaw kooku ci kon ñun ak taalibe bi lañ xam pas-pas loolu lañ xam sëriñ Aliou Diouf Lambaye itam sëñ Abdou Sra sëñ Omar dafa doon bi muy dund aman doom yooyu mu tudde woon borom daaru mu woon borom daaru ak Seexul Xadim ñi ci ëpp ñu nekk nag moom ci dundam looy wax na man benn doom moo may doon benn dom momay moomay doon don ko wax daana jaxal taalibe yi ko yaakaar daana jaaxal itam nit ñi fa da ñew di ko di ko gis mu ne man dom momay don euh bobu ay njabootam nga fa amna fa bo ñetti doom yu tuddee Seexul Xadim ñi nga fa amna na mat juroomi dom yu tuddee borom dal Muslim ñi nga fa ñepp yëpp ñëpp ñi nga leen denc ci barab yi ya foofa ñoy dañ doon wàññi ko par ben di dem di dem di dem ba bi mu bi yu ben bés dem ci lambay fekk fa sëñ Aliou bobu sëñ Aliou amna na ngërëm nga ko topp Euh, fekk fa jigenam bobu di doomu euh, seni Diouf buy wax maam ma Mariama Diouf mu ñew fekk dem ci mom dal di ko ñom bind ci suuf bind mom itam liko ko waral euh, dama ci professeur diko ko waye cyant yep ci seigne àll sëñ daam la jëm waaye nag damay gën a leeral pour ñu gëna xam cyant yi lan moo ko waral bind mi itam liko ko waral wax gi mu doon wax nit ki nit doom doom doomu aadama yi bés sàngam ni nga genn aduna dem len jaamu yalla ci talibi yi sa yiw nangam la sa bakkar nangam la waar baat yooyu ko sëñ Tuubaa waxat muy ci yoon nekk ci nax ju law kaana kalaamu fiddata la kaana sumootu saxaaba ji ba mu koy jox loxo mu wax ko loolu rek ca la bàyyee wax waaw xam na lam doon wax la sëñ la sëñ bi di yëg ca xumaag sarsaara la ko waxe lii ne ko kàddu yi ne ko doonte wax xaalis la woon noppi wurus la ca la jaare jaayante dootul wax yàlla baaxee ko am naar dikkal ko di ko kàddu lu mu bind ci ko wax ko naar bu naar bi ne sëñ bi ne nangam yàlla yàlla su baax su fay suñ Tuubaa mooy loolu dafa dem ci sëñ Aliou bind ko moom kese moo dem bind ko ci suuf ne ko sa jigéen bi tudd Mariama Juuf soxna sëñ Aliou dafa bindaat ci suuf daal delloo ko ne ko bu doon sama mbubb mii ma jox yor tey jii nga nga ñibbee ko euh, Kër Sayer pas-pas boobu la sëñ Aliou jàllale ba jël ko indi teg ko ci loxoom ci jamono yooy noonu euh, barke ba ci sëñ Aliou yéene woon yàlla dogal na moo ca am moom moo moo fa moo fa am barke la ci yéene woon doom jooju sëñ Abdou sëñ sëñ Naamor doon wax naan moom moo may wutu mooy sëñ Abdou Salaam mais nag moom rek ma ko wutu ci góor ñu ci des ñëpp ay jigéen lañ ñu ci des ñooñu ñëpp jigéen yooyu yëpp itam boo demee fenn fu ci nekk ci kër seex seexul xaddim yi fenn fu ci nekk kenn dem na fa doon fa doon fa dara waaye barkeeb sëñ Aliou boobee nga xam ne yéene woon na ko ci soxna Mariama Diouf ba tax mu joxe ko ci buntu kër booba moo waral tey jii sëñ Abdou Salaam dëgg yaakaar naa Sénégal ñu ko fi xamul bëriwut li mu fi defut itam ba ci lu lu fi lu fi nit di def ci lu baax def na ko fii ñu am lante ak njabotu sëñ Aliou Diouf lambay gi tam ci mbokk dëppaat di di xarit sëñ daam mi toogandoo ñun nek do ñun <laughs> moo ñu mag fuuf di sun mak ba mat ñu lepp waye dafa don doon royu royukaay ju ñun dama koy leral pour ñepp xam ko dafa roy royu royukaay sa bu toge toogee day tay ñun tok di waxtan ci sëñ Omar ak lam defan diggante ak Seexul Xaddim wala nga tok sëñ Abdou Salam di waxtan digënté lim dem digënté ak cheikhul khadim wala nga def ci lu baax nan ci contane non lay contane ci lu dégg ci kër sëñ Aliou Diouf lambay ndax dafa melni buntu kër yoy benn buntu kër la moom nag demal na ko dafa doon suñu royukaay mag mooy ubbil ra euh, ubbil euh, rakk aw yoon ubbil nañu yoon woo xamante nii euh, toujours dama koy wax dama dama ci kontaan te it wax dëgg dama koy wax itam ci njaboot rek sëñ Aliou gi dama leen wax sëñ daam na leen bo yoon wan na leen yoonu ab soxna nan lay nan lay doxee wan na leen doomi seex nan lay doxee wan na leen ngërëm li ñu gis ci boro sëñ Thierno Diouf itam ak sëñ Thierno ni mu ko doxalee ci ni mu ko doxalee mu nekk ci wetam liggéeyal ko fa lu ñëpp gis ba tey rakkam yi bari nañ ñoo xamante ni xàmmee gën nañ cee xàmmee kan mooy sëñ Thierno kan mooy kan mooy sëñ Aliou loolee itam ñun ñi itam roy nañ ko ci moom tey bu yëkkatee kàddu di ko wax ci kër sëñ Aliou ñun ñëppee ci kontaan yàlla xam na ko ñëppee ci kontaan su dikkaatee ci bis bi itam ñu koy def fii nii muy bis boobee ñu ñu doon def ci Daaru ñu ñu indi ko fii di ko fi def nga xam ne bis bi moom moo ko taxawal na ko pour juróom-ñaar fukki at yu tegal ñu jël ko di ko màggal ci kilifteefu ga ak mboolem rakkam yooyu ci kë ci kër ga sëñ Mor Talla aadama <laughs> Adama sëñ Cheikh sëñ Moustapha sëñ Modou Gom ñuy ak mboolem njaboot gi yëpp ak suñ Seer mii ñu too toog too toog ñun di ko di ko di ko def ñun ñëpp ñu ñu ñu ngi ko def ci seen kilifteef waaye bu ñëwee ànd ko ñun tey yaakaar naa moo fi sëriñ bi fi njëkk ñëw nii. sëñ Kara Sylla léegi la fi yoon di woote ne mi ngi mi ngi fi mi ngi fi jëm si ñoo itam ndax dëgg yàlla noonu lañ bokkee noonu bokk benn la kon ku fi mën di ñëw moom moo moo moo fi moo bi jataay ba moom mi itam ku ñuy déglu wala ku ñuy seetaan nanga xam ne kenn la ci ñun te it kun kun téye la ba fu mën di yem ci àdduna waaw ñu ngi koy sant bu wér a wér a di ko ñaanal itam yàlla guddal fanam di ko ñaanal itam di ñaanal ko itam barke Seex Xaadim ndax nag sëñ Cerno may waajuram Euh, amut suñu cërub sëñ Aliou rek yem ci dafa am cërub sëñ Tuubaa borom daal muti am nañ loolu <laughs> am nañ ci lu ñu leer ñun ñii di ko wax kon dama am na cër ci sëñ Aliou bu ab cëru boppam ñaari yoon ba noppi la ko liggéey ci kër sëñ Tuubaa yi ñëpp sëñ Tuubaa gi ñëpp nag la ko liggéey ci sëñ Mourou Fatou may may di ko liggéey di ko di ko ko liggéey ba euh, liggéey ko ci sëñ Aliou liggéey ko ci doomi sëñ Aliou yi liggéey ko ci njabootu sëñ Aliou yi yaatal yaatal kër sëñ Aliou ba mu àgg fu ne ci àdduna kontaan nañ bu wér a wér a wér a wér taxawaay bi toogaay bi nga jotaay bi nga toog fii yàlla na yàgg ca sax leen sëñ waajur la war la mu waxal la sëñ Aliou wax sëñ Thierno waxal la sëñ Aliou dund dinaa dund lu ko ëpp ñu ngi lay ñaan tam la sëñ Thierno dund ko waaw ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax a baax ka di la siyaare itam di siyaare itam sëñ Laay bi nga xam ne mooy sa mag di xalifa bu maa ngi koy wax keroog làmbaay macha allah di xalifa bu matab xalifa du xalifa boo xam ne dafa ñëw toog rek yem ci yem ci xalifaam dafa ñëw marqué xalifaam ndax ànd na ko rakkam jii andu ko mbooleem rakam yi ci rakam yep yegg nañ bopam ci ci xalifa gam nek ñun ñi di ay rakam fu ñu fekk day jël bopam wàcce ko ba dooloo ñun waxtaan ak ñun ci àdduna bakk dem rek luñ ko fekke lambay keur suñu màggalu suñu modou gi fo ñoo tok waxtaan ak ñun ci waxtaanu aduna wo xamne euh gën nañ ci xamé ñu ngi ci kontaan bu wér a wér a wér sëñ daam ñu lay siyaar bu baax a baax xam na ne yaa ngi ci yitte yàlla na yàlla yeggale la fa nga jëm la ngay dox itam yàlla yombal ko ak taali taalibe yi la a jóg la nga fay dox yàlla na ko yàlla yombal gi ngeen dëgmal tam yàlla yàlla yeggale ko jàmm may màggal sëñ Jado gi jërë ngeen jëf waaw jërëjëf kay Diouf jërëjëf Diouf